ñu jukkil leen li gën a fës ci biir euh, internet bi dañu koy doole rek ak levée de corps bi nga xamante ni bii rek amoon na euh, ndiki démb rek ci àllarba ji foofe ci hôpital principal bu Dakar mu di suñuy naataango yooyu rek bu métti métti euh, foofe ca Leral TV ña ngi ko defee woon nag ca Tambacounda ginnaaw rek ci bi ab tournée boo xamante ni jiitum réewum Sénégal na ko amal suñu naataango Leral TV nag demoon ngir couvrir rek événement boobule nag far ndogal bi daal leen cay dal ñu def nag accident bu métti métti ba ñett ca ñoom seen bakkan mu di Ousmane Ndiaye Yoro Diallo ak Mamadou Sy ñoom nag jébbal nañ leen seen borom ni ki démb rek ci àllarba ji mu mel ne nag naqar ak tiis rek da moo des nag ci xol yi rawatina ñi nga xamante ne bii rek moo di presse bi ndax ñoom teewe woon nañ fa noonu ngeen koy gisee nag ci image yi mu mel ne nag neexuñu woon ndax benn yoon ginnaaw ci ay rongoñ ak naqar yoo xamante ni rek doon nañ ko fësal ci seen xar kanam ñiy ñaanal rek ñett ñooñee nga xamante ne bii rek ñoo ca faatu suñu borom daal leen di jéggal te xaare ya gën a kawe ñu àddu ci leneen beneen accident bu métti boo xamante ni nemmeeku nañ ko ndiki démb ci àllax ba ji mu di Abdoulaye Ba ay atam toll ci juróom-ñetti at moom nag la benn sept place daal dal ci kawam mu daal ji rek faatu ca saasa ma nga amee foofee ca Mbadiane nekkee nag ca commune bu maleem Odar moom nag buñ sukkandikoo ci libération online bi ko set place bi rek dalee ci kawam daf ci saa si la daal di rek ñàkk bakkanam chauffeur bi nga xamante ni bii rek moo def li ni mel jamono ji ña ngi ko teg en garde à ñoo ko ko def nag ñekkul gendarme yi nga xamante ni bii rek ñoo nekkee foofee euh, ca gox ba waaye nag démb ci àllarba ji bilan bu sapeur pompier def nañ ko jëm rek ci accident yi ak jamono ji tar gi nga xamante ni bii rek tar na ko ba xayma ba mu nga toll ci 257 morts yoo xamante ni bi rek ci diggante janvier ak juin la xew ci 2021 bi mu mel ne nag lim bi yokk na lool lool lool buñ sukkandikoo rek ci ki nga xamante ni moo di waa sapeur pompier ñoo ñu defal ak boobulee euh, bilan mu mel ne rek jamono ji daal accident yi euh, takku na lool lool lool ci diirub janvier jàpp juin mu tolloog 257 morts ñu boole ci rek ki nga xamante ni rek moo di euh, Abdoulaye Ba mi nga xamante ni juróom-ñetti at rek la am ñàkk bakkanam niki démb ci àllarba par accident ñu di ko ñaan suñu borom di koy xaare ca àjjana ya gën a kawe ñu àddu ci leneen beneen mbir moo xamante ni bii rek jamono ji moom lañ doon gën a waxtaane rek ci réseaux sociaux yi mu di maître Abdoulaye baabu rek moo daal di wax ne procureur bu Diourbel bi di Mamadou euh, Seydou Diawo moo yëkkati rek ay kàddu yu doy waa daa koy teg ci Cheikh Ahmadou bambam mu mel ne nag foofe ca benn audience boo xam ne danañ ko amal ca tribunal bu Diourbel ndiki le premier juin bi ñu génn mu mel ne nag kàddu yooyu foofee ca wal fajri daal di xam ne ne rek ne kii du procureur Mamadou Seydou Diaw moo ko teg ci Cheikhul Khadim waaye nag bañ ko lan la wax rek moom avocat bi nekk dane moom loolu du ko wax parce que rafetul neexul te dégg rafetul tamit moom mu di ko wax ci kàddoom ginnaaw rek moom murid la waaye nag dina bind ab lettre jëme ci président de la république daal di bind lettre tamit ministre de la justice daal di wax tamit ki nga xamante moom la ñu teg ci yoonu murid di Serigne Mountakha Bachir ngir naqar loolee nga xamante ni moo di kii di euh, procureur Seydou Diawo yëkkati na ko teg ko ci deru euh, Cheikhul Khadim mu mel na nag kàddu yi ba mu jógee ba léegi gis nañ ne nag ku nekk rek mi ngi ci euh, yëy yàbbi ba Serigne fàll Fall Mbawor nag daal ci wax daal di wàcce nag tension yi bu baax a baax bi nga xamante ni bii rek murid yi meroon nañ ci kàddu yi nga xamante ni rek procureur bi wax na ko waaye nag Serigne Fall Fall Mbawor daal di xam ne ne li nga xamante ni maître Babou wax na ko laalewul dara ak li nga xamante ni rek procureur bu Diourbel wax na ko Diourbel dafa wax ne addiya lañ koy defam de ndaxte ne comme que rek ay kilifa ñoo seqoon rek boobulee audience moo tax rek mu daal di employé mu addiya waaye nag waxul dara loo xamante ne nii rek lu laale la wala mu nekk benn kàddu bu doy waar boo xamante ni rek wax na ko kii di Cheikhul Khadim mu mel ne rek Serigne Fallou Fall Mbaor nee na bu fekkee ne maître Babou dafa am jafe-jafe ak procureur Diao nañ ko lijjantee neneen waaye nag bu mu ci boole benn yoon Cheikhul Khadim ndaxte wax ji rek mënoon naa jur yi leneen ak leneen waaye nag heureusement bi nga xamante ni bii rek teel nañoo xam li nga xamante ni moo xewoon foofee ca audience ba mën nañoo jàpp ne daal lii nga xamante ni rek baa bu wax na ko ci procureur bi dara laale wu ca ndaxte moom muwu at yi rek la daal di yëkkati foofe waaye waxul benn yoon beneen wax waaye waxaatul beneen yoon wax bu ñagas boo xamante ni teg na ko ci euh, Cheikhul Khadim euh, ki ñu ko xam rek moo di surtout Cheikh Ibrahima Fall bii di Serigne Fallou Fall euh, Mbawar jooje wax rek bàyyiwul benn yoon directeur de Amnesty International Sénégal bii di Seydou Gassama moom nag comportement bi nga xamante ni rek maître Babou def na ko ci affaire boobu moom nee na rafetluwu ko rek euh, benn yoon mi ngi koy xamle ci page Twitter am moom Seydi Gassama nee na comportement bi nga xamante ni bii rek maître Babou def na nee na dem ba ci ab média daal fay yëkkati rek ay propos ne ay dañoo kii di euh, communauté mouride mu noonu lak mënoon naa jur lu nekk daal di jëmale ko rek ci ab procureur te nangoo wax benn yoon li nga xamante ni bii rek moom la procureur bi wax nee na loolu moom rafetlu ko benn yoon te mënoon naa indi rek ay jafe-jafe waaye nee nag dafay saluer li nga xamante ni bii rek moo di communauté mouride ni ñu ko déggee ak dal gi nga xamante ni bii rek am na ci ba indiwul beneen jafe-jafe moom nee na rek loolu daf ci kontaan bu baax a baax te tamit di sant bu baax a baax murid yi ci doxaleen gi nga xamante ni doxalee nañ ko waaye nee na daal bi lee comportement bi nga xamante ni rek amee na dem ba si média di waxal euh, procureur te wax leen loo xamante ni wax na ko nee na moom boobu comportement daf koy ñaawlu rek bu baax a baax dañu koy euh, jeexalee rek ak benn naqar bu méttee métti boo xamante ni bii rek daal dinay wàcc ci askanu rek euh, Sénégal mu di benn jigéen jigéen boo xamante ni bii rek mi ngi wuyoo ci turu Dieynaba Traoré am lu toll ci ñaar fukki at ak juróom lu toll ko ñaari fan nag ñu ko doon partagé ah, ci réseaux sociaux yi doon ko wane dafa réer waaye nag dañu ko mujjee gis nag foofee ca filaawu Tiwaawoon pël yi ñu daal koy jamat nag ba mu faatu gendarme yi nag ba ñu wàccee foofee rek ca filaawu Tiwaawoon pël ya fa la daal di gisee rek benn corps sans vie boo xamante ni bii rek dañ koo jamate ñoom nag ñu daal di ko identifié mu tolloo woon ak ñaari fan ñu ko doon wër rek gisuñu ko benn yoon ndaw si nag ca parcelle Assainies fa la dëkkee ñoom nag ña ngay wëyal seenub enquête lépp loo xamante ni rek fasaan ci ca faatu ko ba Traoré googu dañ leen ko indilaatal ci suñu yeneen jotaayu xibaar lii rek moo fi gënoon a fës am internet yi dig daja lay doon ba ëllëg ak jàmm